الرحمن الرحيم صلاة الذي في كل شهر وفي صفر حماني على ما حم الأبس والصبر فلاحي بكوني عبد ربي قديمه ajibun bi li qaada muxnin yi bu lañ gisee jotaay bii nii gis sëriñ bi nekk suñ wet daa doon bis boo xamante bisu mag la bu ñuy waajal fii ci ngaabu mi bisu alquran bisu xasida bisu bernde di yawmun azimun muqassasun li xasaid alxadim wa alqurani karim wa infaq fi sabilillah kon nag bis bi sëriñ mi ngi ko yëgal mbooleem kuy julit mbooleem kuy mbokkum taalibe góor jigéen mag ak ndaw buñ jëlee suba ba noppi incha allah rabbi la tàmbali bis bi ba waxtu timis bis bi nag sëriñ bi mu ko fas yéenee dundal comme na mu ko baaxoo dundal day wax ni bisub daaw ba ak bisu jàll yëpp mboolem kaamil alxuraan buñ jàng ak xasida ak yu mel noonu ren daa bëgg mu ful lool mu jël lépp takk ko jox sëriñ Tuubaa addiya bis bi nag bisub jaayante la bisub jël lépp jox ko Serigne Touba addiya ndax daa yëg ci xolam yëg ci boppam yëg ci njabootu boppam Serigne Touba defal na ko loo xamante ni lot na ci lool ngi sant ko mi naa woote bis boo xamante ni woo samay taalibe woo samay am di jàmm woo samay wóllëre ñi maasandoo takkandoo toog ci benn jotaay ci benn barab jël lépp jox ko Serigne Touba addiya bis bi nag ren nag moo doon juróom-ñetteelaat mi ngi koy amal ajjuma gi njëkk ci weeru safar dëppook 10 septembre kon ñooy ñaan ci kàtt nag borom Touba xasida yi képp koo xam ne teew na fi rek yàlla na am ngërëmal borom Touba. mooy li gënal sëriñ bi itam xasaayid mi ak loolu la xam li nga xam ne moo gënal yàlla gënal yonent bi gënal sëriñ bi loolu ci la moo tax mu jël bis boobu di basa waxaan xasida te su borom waxoon ni xasaayid yi xat yi ahabu li shakuri al akrami min xatti xayri waaye lu sama mbind moo gënal yàlla gënal yonent yàlla Muhammad ci mbind ku dul man loolu nag gannaaw li gënal yàlla gënal yonent rek moom moom la jël gënal Serigne Touba loolu la jël mooy jitaay bii mooy bis bi mooy waajal xasaay di eh, li ci nekk kenn mënu ko wax ndax koo xam ni ndoxum daam képp bindugul benn araf ndoxum daaje képp maa umi day di këddima ay shuhada te bindugul araf ndox mi ndox mi rek moo yem ak dereti shuhada yee faatu woon nga yëkkati baatu bi laa ilaaha illallaah ba dee ci lislaam ndoxam daam moo yem deret jooju kon araf yi kon xam lu mu toll araf yi wajal xoroof yi ka fi àll rasul yi jëf yonent yi seen jëf yi ne suma araf yi noonu la mel digle it fonk ko fonk la ko suñu bisir ne moo nu ci njëriñ nunu na ngeen fonk sama xasaay di te di ko ormaal te di ko jàng te di ko jàngalu na leen mu na leen wóor ni sama xasaay yi yéema ne wuutu ma leen ak dëgg sama cër yi jox leen ko ni ngeen ko ci njaay ne sama xasaayid yi wóote yow ma ak dëgg sama ci yi jox leen ko kon loolu lu ko ëpp amut lu ko gën amut loolu nag doy na si ñu xam ne daal euh, bis boobu daal làmb woon a zahir làmb woon a baatin ëmb na àdduna ak àllaaxira ngërëmal sëriñ Tuubaa ak tawfiix sëriñ bi ak ndimbal ak euh, sunu borom ak ngërëmam lépp ak yonent bi léegi mu ngi ci biir bis boobu yàlla ñu ci ànd ak moom ànd ak tawfiix euh, lam ci bëgg mu am ko sëriñ bi am ko ñun itam am ko te yàlla yàggal ko fi may woote nag man ci turu jànkati xaside yëpp képp koo xam ne suñ borom dogal na nga dégg ja woote bii na nga xam ne bis bi yaa ko moomal sa bopp bu kenn bàyyee kenn nañ leen teel a ñëw ànd ak sëriñ bi bis bi ndax sëñ bii kat jëmm la joo xam ne képp koo xam ne yaa ngi yëkkati xasida koo xasee tàbbi ci këram gi amut fu mu lay yemale dalay def ne boppam di la teral ci jëmmam di la teral ci alalam di la teral ci xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ci nga yëngu kon nag ñoo ngi woo jànkati xaside yëpp ne ñëpp teel a ñëw sol lu set sol lu rafet xeeñ parfum bu neex dikk ànd ak moom bés bi ba mu àgg bu ëllëgee lépp lu ko ci suñu borom di fay moom am na yéenay bokk ak ñëpp. Euh, di ko xamante ni léppam yëngatoom bépp bëgg sëñ Tuubaa lu gu ak ak xasida di ko ñaanal nag suñu borom baat bu gàtt muy suñu borom musal ko ci cat waaw ndax euh, sëñ Tuubaa lépp lum ñaanlu rek. am am lu mat a muslu la waaw comme noonu ko sëñ Bay Jaxate waxee woon ne seytaane moo bon bu séeroo murit ba di dawal sangam ba bay bëgg am jaajëf mu yàqali ko eh, nan ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Gueye waxee rek ci xaside yi waccax mi daal di fawqa kulli maa i barakatan ka mataris samaa i eh, sëriñ bi waxaat ko xëy na dumma nizaama ila sa'i sihaabi gadan wala taruddannahu yaa musibal ilali ñoo ngi ñaan ci barke bayit yooyu bis bi nga xam ne moom la wootee yàlla na yàlla bokk ci bis si nga xam ne moom la sëriñ bi gën a gërëm yàlla nañu am yërug fekke ko yàlla nañ ko man yàlla nañ ko tal te lépp lu ci waay defoon daaw yàlla nga ci man reen lu ëpp loolu yàlla nañ ko yàgg a def waaw te sëriñ bi yàgg koo gërëm maa ngi woo walëri yëpp jànkati xaside yëpp jànkati alxuraan yëpp bindkati xaside yëpp ndax ñii la sëriñ bi mas a am bindkatu xaside jànkatu xaside ak kuy liggéey ci xaside ak kuy liggéey ci alxuraan kon kàddu yi dañuy bañ ma gudd noo ngi ziar nag bu baax a baax a baax sëñ Ibrahima Mbaye mi nga xamante ni mooy bunt bi fii wax dëgg yàlla rafetal na ko yaatal na ko ci sëriñ bi rek tax waaw di ko ñaanal gudd fan ak ñoo ngi leen di woo ci turu daayira Mawahibou Nafih bi nga xamante ni moo lëkkale taalibe sëriñ bi tey taxawu bis bi ñu ngi ciy woo kon bépp daayira rek mu nekk réew mi ak bitim réew rawatina nag waa fédération bi nga xamante ni moo nekk fii te lëkkale daayira yi wër ngaabu ak li ko wër. ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di leen wax ne at mu jot daa ngeen ko ànd ak ñun ci taxawaay bu rafet kon ñu ngi leen ci woo bu baax di wax ngeen yokkaat pas-pas yi bu baax di ci woo bépp daayira rek di sàkku seen teewaay di fàttali ne eh, bu nu xëyee rek incha allah programme bi ni muy demee bu nu xëyee rek dees na taxawu ci dalal gan yi bu ñu demee bay boori fukki waxtu danañ tàmbali liggéey bi sëñ bi ne mi ngi soññee bu baax ci ne bu kenn fàtte ne bisub alxuraan la woote bisub xasida la woote. kon ñu fexe ba ku fi ñëw rek sa waxtu bañ a neen lépp ñu jaaxal ko ci liggéey bi ci di durus xasida yi ak di ko yëkkati kon mu mel ni juróom-ñeenti waxtu programme bi dana tàmbali ci durus bi ak ci yëkkati bi buñ demee ba booru tisbaar danañ dem julli ci àjjuma buñ del siwaatee mu mel ni des na xaw a tendeefal tuuti daal di joxe bernde yi buñ noppee daal di jëlaat liggéey bi noonu lañ koy taxawale ba dimis su koy defee ñu daal di def loolu ñuy wax ndaje mu mujj mi ñaanal ñëpp yow yi mbooloo mi di fàttali ne jamono daa xaw a naqari léegi mu mel ni tawat yi mu ngi fi ba léegi kon képp kuy ñëw rek ñu bàyyi xel loolu ñuy wax mesure barrière yi bu ñu mënee takk masque yi te yor sel yi ñu ngi koy fàttali bu baax waa daayira bi nga xamante ne ñooy taxaw bisu ñu ngi leen di bu baax di wax ne ginnaaw da ngeen a woote war ngeen a takku te laxasaayu fas yéene ba lépp jaar yoon fas yéene ba lépp taw feexe kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn képp kuy wa ashhadu anna muhammad woo ci bis bi di bu baax rek ne sëñ bi bisub xasida la woote bisub alxuraan la mi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa képp ku fi teew dajeeg ndimbalul borom Tuubaa di yëgal sama mbokk soxna yëpp euh, bisub xasida bi sëñ moo Lo di amal le 10 septembre incha allah fii ci Ngaabu maa ngi koy yëgal soxna yëpp ak fépp fu nekk di leen ci soññ bu baax te di ñaan soxna yëpp teel ak agsi incha allah ngir mën a jàpp ci liggéey bi jàpp ci liggéeyu waañ bi waaye jàpp tam ci liggéey ci yeneen liggéey yi di leen soññ tam ci xasida yi ndax cër bi ci góor yi am ñun soxna itam moom lañ ci am kon nag ñu ngi ciy soññ ñëpp di ci tàmbalee suñu bopp incha allah di ñaan tamit ak fi jamono bi toll bu ñu ñëwee ñun ñëpp ñu jéem respecté mesures barrières yi incha allah. mbooleem kuy déglu suñu kaddu fas yéene yëkkati kaddu yoo xam ne jële sunu kilifa di sunu sëriñ di sëriñ Mouhamadou Abdourahman Lo ibnu sëriñ Daam Lo ibnu Cheikh Ibrahima Lo kàddu yi nag du lenn lu may li fi mbokk yi fi jot a jaar wax mooy bis boobu nga xam ne moom la daan defal sëriñ Touba fii ci Ngaabu mu war a doon ajjuma ji njëkk ci weeru safar te muy tombeek le 10 septembre incha allah sëriñ bi nag ginnaaw bi mu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. ak mboolem ummatu islaam bépp mu ngi ko yëgal mbooleem kilifa yëpp di ko yëgal mbooleem kilifa yim seqal ngaabu yëpp itam di ko yëgal mbooleem tundu ngaabu yëpp itam ngaabu di sango ak mbooleem dëkk yi wër ngaabu yëpp mi ngi leen ko yëgal di ci woo kilifa diina yëpp di ko tàmbalee ci seex Muhammadul Moustapha ba ci seex Muhammadu Murtada di ko tàmbalee soxna Fatja ba ci soxna Maymunatu Suxra ñëpp mu ngi leen ko yëgal ak mbooleem kilifa yim seqal ngaabu bis bi nag euh, noonu mu ko daan defee rek da daan wax naan bépp taalibe ameel na àllarba ab sëriñam te bis bii da ko def àllarbaam ci sëriñ Touba mu bëgg buñ ca yeggee ñu ca jàng ci alxuraan ak xasida ñu takk ko nib say jox ko sëriñ Touba addiya kon nag mi ngi ciy woo ñëpp di ñaan yàlla def tawféex yàlla euh, nangu ñaan yëpp bi bis baax noonu ko sëñ Maxtaar waxee itam ñu bàyyi ko xel bu baax ndax fi jamono toll képp kuy ñëw rek nga bàyyi xel loolu docteur yu digle ngir sàmmanteeg ndigalu sëriñ bi ci loolu mi ngi koy yëgal ñëpp te di ci woo ñëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaatun wa taslimu ma albisri sharmadan xalaaman bihi muksi ma alhamni walbusar